voilà asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nga xamante ne yéen ñu suivre fii si jàmm ji info point net tey nag dañu jëloon euh, journée benn journée ñëw seet si quelques rédactions de la place xamante ne fan yi euh, feebar bi nga xamante ne gane si na fii Sénégal mu di Covid 19 ñu gën ko xam ci turu coronavirus te gis nañ ne peut-être tey la majeure partie des journalistes wala journalistes yu ba euh, journalistes yëpp dañu exposé parce que ñoom ñooy génn di dem di def reportage aussi si surtout ci hôpitaux yi. alors sans plus tarder rek dañuy joxe tàllal suñu micro ñi fi fekk rek ñu wax ñu ñoom nan la ñuy dundee wala nan la ñuy aaree seen bopp ci virus bi. voilà suñu mbokk internet yi euh, ñu ngi fi nga xamante ne moo di euh, direction jàmm ci info point net euh, ja fekk fi ñi nga xamante ne moo di président directeur général ak ki nga xamante ne moo di suñu rédacteur en chef ñu waxtaanee ak ñoom rek li nga xamante ne moo di niñ ko waxee suñu introduction mu di feebar boobu gànn si àdduna mu di coronavirus DG ñu ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi lay fay soxna Awa Fatou Diagne ci liggéey bu am solo bi lay tabarkal la ah, di la wax ak jàmm. voilà ñu gis ne jamono ji ni ma ko waxee sànq Covid 19 ñu gën ko xam ci turu coronavirus gane si na fii nga xamante ne moo di Sénégal ah, ñu gis ne journalistes yi mën nañ ne ñoo xamante ne ils sont un peu exposé ndax ñoom dañuy génn di jëli information di dajeek ñu nekk di saafantook ñu nekk yéen en tant que njiit nan ngeen di aaree seen bopp ba pare aar ñi nga xamante ne moo di seen journaliste. Euh, waaw euh, jërëjëf yaakaar naa laaj la boobu nga xamante ni yaakaar naa dafa daj àddina wërngal këpp rawatina réew mi nga xam ne muy réewum Sénégal euh, li may wax rek ni Covid 19 di coronavirus yaakaar naa ni du lu ñuy lam-laame dafa nekk loo xam ne lu reyal la am na amul loolu yaakaar naa ni ku xamul fa nga jëm mooy taxaw di ko wax ndax boo xoolee rek. Euh, li nga xamante ni mbooleem ñi nga xamante sax laay wax nii muy kilifa diine yi nga xam ni euh, ñu ngi fii ci déewum réewum Sénégal ku ci nekk gis nga ñi nga xamante ni sax amoon nañu euh, li nga xamante ni fa laay njëkkee mooy mboolem actualité moo xam ci wàllu gàmm ziar ñuy waajal yépp dañ ko aj ngir rek dëkklu li nga xam ne muy décret bi nga xamante ni ginnaaw moom lañ fi teg di ñiitu réew mi le président Macky Sall gis nga tam ak acte yu rafet yi nga xam ni def nañ ko ci lu ci demee ni tey euh, yaakaar naa acte bu ñu war a souligner la ak kilifa diine yëpp sax laay wax rawatina Serigne Mountakha Mbacké xalif euh, général des Mourides gis nga 200 kan bu demee béykat def loolu kon yaakaar naa ne du xeexu benn nit du ñaari nit euh, réewum Sénégal gi yëpp la loolu acte la boo xam ne gunge li xam ne lii nga xam ne moo ngi dem nguur gi du moom rek ko attan kon réew mi foog ñu jàpp ko par rapport a war nañu taxaw ndax dañu naan ñoom xëy na seen dugg ak génni bari na dëgg la lu wér la moo tax ñoom ñu war a jël seen matuwaayu matuwaay yu am am solo euh, noonu la ko médecin yi waxee noonu la ko santé di waxee ministre de la santé yaakaar naa ni gis nga ni boobu ba léegi ñoo ngi dox ci matuwaay yooyu tamit doyul euh, li may wax rek euh, que tamit information yi c'est très important fu mu nekk nii dëkk bi jaxasoo nañ askan bi jaxasoo nañu eh, am na ñoo xamante ni xam ne li may wax ni mooy réseaux sociaux yi dem nañ ba nga xamante ni tey dégg ngeen ministre de la santé yëkkati na ci ay kàddu wax ci loo xamante ni eh, yaakaar naa dama naan loo gis am na exception yaakaar naa ni message yi ñuy eh, jël di ko jàllale ngir askan wi ci boppam ndax ku ci nekkat li ma wax rek yaa ngi télévision léegi sa biir poche ah gis nañu muy YouTube bi. presse en ligne bi ku ci nekk boo jul information sa kër yaa ngi koy am ci yoon wi euh, kon yaakaar naa ne fi nga taxaw à temps réel mën nga am lépp loo xam ni kon donc li ñu leen di jox rek war na nekk loo xam ni lu sell li mën a dal tamit euh, xelu askan wi euh, yaakaar naa loolu aussi c'est très important message bi may daaneele rek moom laay wax surtout dëgg la école lekkool yi tëj nañ leen muy école yi les parents d'élèves surtout euh, la ñuy waxaat bu du génnee ci mbedd mi euh, da ngay gis ne la ñu doon la ñuy wax ñoom war nañu mën a jëlaat li nga xamante ni moo di njaboot gi téyewaat leen tamit di leen sensibiliser surtout ci wàllum cet cet gi euh, raxas say loxo nañ ko waxee ku ci am ak eau de javel cet bi ñu gën koo yokk yaakaar naa tamit bu ñu yokk bu ñu bu ñu jaaree ci li nga xamante ne mooy euh, wàllum santé li ñu digle yaakaar naa ni euh, jàmm war na fi mën a am xam naa kàddu gi di bëri journaliste yëpp laay wax en tant que ñun ñi nga xamante ni ñu ngi dem ci terrain bi rawatina ak suñuy morom li ñu gën a mën a def rek mooy ni ko ministre de la santé waxee tamit ñu doxalee ba def sax lu kawee njortam ci wàllum cet que ci yaakaar naa dugg bi ñun tamit am nañ ci ay part bu bari bari di rek li nga xam mu di Covid 19 di euh, coronavirus di ñaan yàlla yàlla na ko tagg tegg ci réewum Sénégal rawatina ci àddina bi euh, kon soxna Awa ñu ngi jaajëfal sa liggéey bu am solo waaye tamit euh, di la jaajëfal bu baax a baax macha allah ñu ngi lay sant bu baax. voilà euh, dégg nañ li nga xamante ne moom la fi directeur général wax euh, ñu jàkkaarloo aussi ak ki nga xamante ne moo di rédacteur en chef euh, jàmm ji info point net di Coumba Ndoffène Diouf ñu bàyyi ko moom aussi mu joxe ci rek ay kàddu aussi moom ni muy fagaroo ni muy ni muy fagaree aussi ay journalistes waaw soxna Awa Fatou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw comme ni ko sama PDG waxee rek gis nga au niveau de la rédaction. Euh, jël nañu suñu ay euh, disposition ndax yaakaar naa comme que ñun ñooy joxe information bi ñun ñoo naan nit ñi aar leen seen bopp def leen nii ñun ñoo war njëkkee ci aar boobu aar sa bopp boobu ak mesure de prévention yooyu ci ñun la war a njëkkee ah, dama ci profité rek di lancer benn appel sama mbokku journaliste yëpp quoi. Euh, nañu nañu aar suñu bopp ñun ñi parce que ñun ñooy dem sur le terrain ñun ñooy dem ci conférence de presse ñun ñooy dem ci hôpitaux yi euh, war nañ jël suñu ay ñun ñoo war a gën a mën a jël suñu ay euh, motukaay quoi aussi maanaam bëgg am benn primeur wala exclusivité ci information bu mu tax jamais ñu exposer suñu suñu santé dañoo am benn rôle bu important bu ñuy jouer ci kii bi ci comment dirais ci affaire ci crise bi Euh, fi mu nekk nii léegi à part à part mesure de prévention yooyu beneen appel bi may lancé sama mbokk journaliste yi mooy bu ñu tiital population bi bu ñu tiital population bi bu ñu tiital population bi instant yi waratuñu jiital euh, benn intérêt comme intéret personnel waratuñu xool man bu ma publier article bi bu ma tiitree nii dina tax nit ñi cliquer wala saa non instant bi euh, nañu jiital euh, intérêt national bi nañu jiital patriotisme euh, bépp information bu ñuy publier d'abord na nekk information bu ñu vérifier na nekk information bu claire information boo xam ne bu claire lay doon bu ñu vérifier ñu éviter fake news ah ci loolu damay saluer mesure bi mesure bi ministère jël ci fake news yi quoi récemment gis nañ ay nit yoo xam ne convoqué nañ leen tout ça entendre leen te loolu tam ñun journalistes yi dañoo war a xam ne tam loolu euh, ni mu ni ñu ko appliqué si ñooñu ëllëg mun nañ ko appliqué euh, si ñun ñi ñun journaliste kon ñun tam nañu jël suñu ay disposition nañu jël suñu ay mesures bépp information bu ñu joxe na nekk lu na nekk information bu officiel bu ñu joxewul information boo xam ne ci ministère la jógee même beneen information bu ñu koy am na nekk koo xam ne spécialiste la nañ déglu koo xam ne spécialiste de santé lay doon ñu jël information boobu si moom euh, population aussi nañ collaborer may wax population yi rek képp koo xam ne yow gis nga ne nit kii mu leer na la kii jóge na fii euh, comment dire jóge na Italie wala jóge na fee wala nangam nangam ñëw na mm, boo amee si moom benn kii rek suspect nga gis muy développé kii ak loolu rek na nga joxe information bi loolu daf ci am solo quoi nga joxe information bi peut-être loolu dina tax euh, propagation kii bi dina wàññeeku. Euh, xanaa rek peut-être fu may daanelee di woowaat population bi mesure de mesure de prévention yi ministère joxe. dañu si gën a bàyyi xel nañ ci gën a bàyyi kii à savoir di raxas suñu loxo yi ak saabu booy tisooli nga utiliser mouchoir tisooli wala sëqët boo koy def nga utiliser mouchoir boo paree def ko ci poubelle à défaut nga yor mouchoir comme ni ñu wax booy kii na nga na nga tisooli mbaa nga sëqët hmm, ci sa kudd raxasu bi moom raxasu bi bu mu doy quoi ñi xam ne amuñu gel ñi nga xam ne amuñu peut-être yoo xam ne nii am nañ mooy amuñu moyen jënd gel saabu yomb na ndox ak saabu yomb na raxasu bi moom à chaque fois dafa boo génnee sa kër raxasu booy dugg raxasu toilette booy dem raxasu joxe loxo bi aussi ñu wàññi ko wàññi joxe bi yaakaar naa daal bu ñu defee noonu daal jël appliquer mesures yi ñu wax mu am cohésion nationale ñëpp bokk ñëpp bokk xeex bi incha allah coronavirus bi dinañ ko vaincre quoi soobee yàlla mbokk internet yi ñu ngi fii nag fekk fii waa info réew mi euh, ñëw aussi laaj leen ñoom. nan la ñuy euh, euh, waajalee wala nan lañ ba war a daane li nga xamante ne moo di coronavirus bi euh, sëñ bi nuyu nañ maa ngi lay fay di la wax excel ak jàmm di nuyu aussi tamit seen mbokku téléspectateur internet yi aussi tamit di wax ne maa ngi tudd ma Maleye Mboup nekk journaliste fii ci info réew mi point com ma lay ñu xam ne jamono ji li nga xamante ne moo di coronavirus dugg na fii Sénégal te xam nañ ne peut-être mën nañ ne les journalistes sont trop exposés yéen noonu leen koy waajalee fii ci rédaction bi. waaw ñun depuis bi ñu déggee ne doomu jàngoro ji dugg si na fii nga xamante ni moom mooy Sénégal eh, ñu ngi ciy jël ay matuwaay yu mat sëkk ci wàllum information eh, ci wàllum tamit eh, système de sensibilisation parce que jàngoro bi nekk na jàngoro bu xamante ni xëy na c'est partout dans le monde jëf ji nga xamante ni mu ngi koy def rawatina ci les pays yi nga xamante ni mu leen jàppee ne ce sont des pays puissants lu ci mel ni Italie lu ci mel ni France lu ci mel ni Espagne gis nañ jamono ji nga xamante ni noonu la fa feebar bi def eh, boo ñëwee fii ci Afrique nag eh, ci diwaanu Sénégal dafa nekk lu xamante ni eh, réewum teraanga la réew mu xamante ni tamit dañoo baaxoo am suñuy culture ak suñuy valeur ba tax na doomu jàngoro ji daal gëm naa ne dinañ ko sàmm bu baax a baax a baax te dinañ ko moytandiku tamit bu a baax a baax. alors ñu ñëw ma ñëw ak yow rek ci beneen concept en tant que journaliste fan yi yëpp ñu ngi wax ne fake surtout fake news yi nga xamante ne ñi ngi koy euh, partager ci réseaux sociaux yi ñi ñuy teg tuuma mooy ñi nga xamante ne ñoo yor site internet yi yow en tant que journaliste nekk ci site internet looy wax. waa damay wax nekk ne mesure bi dégg naa ko tey suba euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr jël na ko ngir ñëpp ñi nga xamante ni dañuy publier Fox News mooy comme ça fausse information ngir. Euh, li nga xamante ni moom mooy euh, information bi war ci li nga xamante ni moom mooy feebar bii di coronavirus parce que gis nañ ne askan wi ni mu kit mel gis nañ askan wi ni ñu paniqué loo ak ni nga xamante la ñuy jaaxlee yaakaar naa ne bu fekkee ne ministre bi jël na ndogal bi man dama bu baax a baax baax di ko rafetlu bu baax a baax parce que Sénégal li nga xamante ni moom mooy média ak li nga xamante ni moom mooy réseaux sociaux yi muy problème bu xamante ni ça euh, presque boo xoolee fépp ci Sénégal au niveau du WhatsApp xam nga Twitter euh, Instagram Facebook nit ñi nu leen neex la publier seen information te amuñu ci lenn lu xamante ni euh, leer na di may wax rek ne ak journaliste. moom lañ joxagul àq fi mu toll nii liggéeyu métier journalisme xëy na joxaguñ ko àq mais yaakaar naa ne yii buñ ci jugee war nañoo mën a delloowaat bu nga ca mboy mboy ga jox ki nga xamante ni moom mooy journaliste àq ak yelleefam parce que dafa neexul nga digg wàcc sur le terrain wuti li nga xamante ni moom information euh, vérifier ko équilibré ko ñëw collecte boobu nga monté ko pare nga soog ko jox ki nga xamante ni moom mooy doomu aadama bi ba pare ki nga xamante ni moo toog këram wala mu toog néegam xamul sax li nga xamante ni moom mooy xew ci Sénégal gis benn moromam bu jël benn message posté mu jël message ba moom tamit daal di koy dugal mu nekk lu xamante ni xëy na yabaate la yabaate la ak xëy na def lu xamante ni maa tay la ba tax na ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi man bu jëlee euh, ndogal bi jaarale ko ci ministère euh, de l'intérieur jaarale ko ci tamit ñi nga xamante ni moom mooy le procureur euh, mu tàbbi ci loxo loxoy ki nga xamante ni moom mooy ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr mu wàcce ko ci askan wi man damay rafetlu loolu bu baax a baax. voilà comme ni mu ko waxee rek dafa métti yow nga dem sur le terrain collecter sa information ñëw andi ko nit génnee leneen te tort bi bu ñëwee euh, journaliste yi lañ koy jox surtout ñi nga xamante ne ñi ngi yëngu ci wàllum site internet. aussi duñ la bàyyi ma lay ñu wax leen rek comme que joxe nañ ministre de la santé aussi nee na ñu jënd ay gel jënd ay masque est-ce que tey ji euh, rédaction Infos mi taxawee na lool. Euh, ñun ñi nga xamante ni ñoo nekkee fii ci diwaanu Infos Rewmi nekk ay journaliste technicien yeeg euh, monteurs yi animatrices yi animateurs yi ñun ñu ngi bàyyi xel li nga xamante ni moom mooy doomu jàngoro ji parce que gis nañ li muy def gis nañ tamit impact yi nga xamante ni dina ko am ci doomu aadama gis nañ tamit ci wàllum économie ni muy naxasalee euh, nafak réew ni muy naxasalee li nga xamante ni moom mooy koom réew kon yaakaar naa ne feebar bi nekk na feebar boo xamante ni waruñu koo sàggane waruñu koo fowee ba tax na ñun ñu ngi jël suñuy gel alcoolique yu xamante ni moom la ñuy utiliser bu nuy dugg ak bi nga xamante ni moom la ñuy génn suñu demee fenn ba ñëwaat dinañ ko utiliser euh, du suñuy loxo li nga xamante ni tamit moom mooy ndox ak saabu dañuy raxasu ba set euh, nuyoo bi sax euh, xëy na dakkal nañ ko fii dakkal nañ ko parce que gis nañ ne Sénégal dafa ne réew mu xamante ni xëy na li di nuyoo mënu cee ñàkk mais tax na ba ñun bu ñëwee rek salaamaaleykum doy na wala bonjour après ku nekk daay dem jël gel bi daal di utiliser ko say loxo soo paree nga daal di wéyandi sa liggéey waaw ñu ngi leen di jaajëfal di wax tamit euh, franchement man dama leen remercier waa jàmm ji info parce que lii dafa ne lu xamante ni xëy na euh, lu ñu yàgg bëgg la ci Sénégal parce que yaakaar naa ne Sénégal depuis choléra euh, ak ébola waroon na nañoo di fagaru parce que réew mi dafa ne réew mu xamante ni lu neex waaye def lu neex waaye tamit daal di def. lu neex waaye tamit daal di amal mais set dafa bokk ci li nga xamante ni l'islam da ko santaane set dafa nekk ci loo xamante ni doomu adama noonu la war a mel ba tax na ne euh, duñ waruñoo xaar rek feebar bi am ku ci nekk di bañ a nuyoo wala ku ci nekk di utiliser gel d'alcoolique bi man dama naan déedéet di lancer un message nag euh, parents yi parce que ginnaaw xale yi ndongo yi dakkal nañ leen seen dem ci école bi nañ xale yi bu baax parce que nekkul ne dañ leen a dakkal rek ñu bàyyi leen noonu seen sago ñu dem déedéet dañoo war a garder xale yi toog leen wax leen lan moo tax doomu jàngoro ji ni mu demee ak conséquences yi nga xamante mun na ko jur ci ëllëgu réew mi bu ko defee euh, ñoom ñu teg xale yi taaj leen euh, téye leen bu baax a baax a baax loolu laa amoon ci lu may wax di leen jaajëfal bu baax a euh, a appuyer ci dernier message bi nga xamante moom la lancé rek muy xale yi le président nee nañ tëj école yi mais ñuy lancé un message parents yi xale yi téye leen ci kër gi buñ leen bàyyi ñuy génn euh, ci kër yi su ko defee rek doomu jàngoro bi mu doon moyen boo xamante ne rek dinañ ko mën a a xeex mu gaaw a génn ci dëkk. voilà suñu mbokk internet yi ñu ngi nii nag tamit fekk si ñi nga xamante ñoo di waa Sene News pour ñoom ñu wax ñu rek ñoom nan la bi nga xamante ne moo di coronavirus madame ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay. di leen uh, jaajëfal ci seet si bi ngeen ñu seet si. di wax ni rek uh, ni ñun fii SeneNews xaaruñu coronavirus bi pour uh, def focus ci li nga xam ne mooy hygiène ndax au quotidien fu ay nit di tase. hygiène bu irréprochable dafa war a am notamment pour ce qui concerne le matériel les toilettes ak lépp lépp loo xam ne rek dañ koy côtoyer au quotidien ndax xam ngeen ni euh, matériel bi dañ koy bokk micro yi dañ koy partagé donc souris ordinateur yi lépp dañ koy bokk donc ñun bi corona bi ñëwee dañoo renforcer rek mesure d'hygiène yi en plus de nettoyage bi ñu doon def ci matériel yi léegi dañu indi gel hydroalcoolisé donc à chaque sortie wala képp ku ñëw dee raxas ay loxoom génnee ba ñëw donc euh, mesure yooyu la ñu def pour renforcer li nga xam ne mooy daal euh, sunu hygiène bi nga bi ñu am jotoon am déjà au quotidien fii ci SeneNews voilà ñu nga xam ne tamit xam ngeen li nekk sur le terrain ñu bëggoon rek nga joxe conseil gën a conscientiser nit ñi comment faire pour éviter propagation maladie bi déjà euh, tënku ci li ministère wax muy moytu rassemblement yi daje nit yi autant que possible comme dañ ko tere sax xam naa dina gën wàññeeku waaye ñu gën koo moytu donc euh, car yi aussi transport en yi dégg naa dakaar dem dikk ñu ngi joxe à bord ay gel euh, alcoolisé pour nit ñi mais car rapide amagul tata yi amagul donc na nekk euh, loo xam ne ça devient systématique saay boo wàccee ci oto yi nga raxasu raxasu boo amul gel alcoolisé nga jël saabu nga raxas sa loxo ba mu set loolu yaakaar naa nekk na loo xam ne dañ ko war a dëkkee ba keroog ñuy gis leneen gis nañ ne démb aussi ministère de la santé génnee nañ benn décret boo xamante ne mooy fausse nouvelle yi nga xamante ne jël nañ di ko euh, partager ci euh, site internet yi te buñ joxee tort bi journaliste yi la ñuy jox tort surtout ñi nga xamante ne ñuy nekk ci site internet yi yow en tant que euh, koo xamante ne yaa ngi ci site loo ci réagir. waaw man damay wax ni déjà journalist diñ de sañul véhiculer fake news fake news yi dañ koy euh, taqal journaliste yi waaye bu ñu xoolee fa muy jóge journaliste ki sa respect sañul joxe fake news ndax fi mu nekk balaa ngay jox lecteurs yi surtout moment yi nga xam ne ñëpp dañoo euh, connecté wu ci site di xaar information bu baax sunu responsabilité mayuñu ñuy véhiculer ay fake news donc xëy na feneen lay jóge am ñuy yàkkamti relayer parce que course à l'info bi yenn saa yi day tënk nit ñi mais je pense que ku nekk dafa war a def preuve de responsabilité surtout jamono ji ñu toll nii information balaa nga koy délivrer nga segg ko seggaat ko ba nga xam ne boo ko joxee kenn du am lu mu ci wax wax dëgg yàlla. ñu bàyyi aussi nga joxe conseil parents yi nga xamante ne tey wax nañ seen doom yi ñu des ci kër yi ban conseil ngay jox parents yooyu. bon comme euh, ni ko ministre bi waxee du xale yi nekkuñu biir dañ leen euh, may ñu toog ci kër gi pour sàmm leen kon du am sens ñu ne xale yi nañ toog seen kër yi duñ jàngi ba noppi ñu bàyyi leen ñuy génn di taxawaal donc na parents yëpp téye xale yi ci kër gi am na ñoo xam ne nag ñoom seen doom yi dañ leen di lëjal daanaka dañ leen di génnee bu ñu demul école ñu utal leen fu ñu dem wala dem leen fowi ngir yàlla na parent yi téye xale yi ci biir kër yi jox leen ñu lekk lekk gu sell di leen raxasal seen ay loxo fexe ba environnement bi ñuy évoluer tamit nekk environnement bu set kazalika itam personne âgée yi ndax ñaari couche yooyu ñoom ñoo gën a vulnérable ci côté santé bu dul coronavirus sax xale ak mag dañoo vulnérable donc nañu leen sàmm li lay wax lay remercier ci dalal man maa leen di remercier ci liggéey ñu seet si. voilà suñu mbokk internet yi nga xamante ne yéen a ñuy suivre fii si jàmm ci info point net lii lañ leen andiloon tey gis ngeen xëy nañ dem ci rédaction yi dem jaar nañ fi nga xamante ne moo di info mi jeexale fi nga xamante ne moo di Sene News wan leen ñoom ni ñuy dundee ak li nga xamante ne mooy mesure d'hygiène yi ñu war a jël wane nañ ne ñoom avant ñu ngi doon jël mesure d'hygiène yi tey lii bu amee da leen ci fekk mais di du leen tere ñu gën a renforcer ni ñu koy defee. joxaat leen dig daje rek beneen yoon ci beneen événement asalaamaaleykum wa rahmatullah jàmm et divertir dans la paix. mi bëgg jot xibaar yu sell te